dafa sooxe ndax li koy wane mooy Yeah. <laughs> واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد exceptionnel à Ziguinchor. bi mooy programme bi. bi mooy programme bi. c'est fini 2024. Diomaye mooy Sonko. Sonko mooy Diomaye. doole jeex na. sàcc yi jeex na. crayon yi jeex na. premier tour. premier tour. premier tour. un premier tour. Premier tour. Exceptionnel à En caravane exceptionnel un caravane du président Ousmane Sonko. En caravane exceptionnel un caravane. tour ah. premier tour dañ koy kaw. premier tour ah. on le cogne on capte et on gagne. allahu akbar. premier tour premier tour. merci. wax bi jeex na. merci beaucoup premier tour. dañ koy dee génne ci. Ziguinchor assuré Ziguinchor assuré. assurance. Ziguinchor assuré. Ziguinchor assuré exceptionnel. oh yaram daw na yax des. yaram daw na yax des. yaram daw na yax des. Premier tour madame le maire. Premier tour madame le oh, yaram daw na. Oh, yaram daw Premier tour madame le maire dans premier tour. oh. ah. Ziguinchor. vis-à-vis de uh-huh. la coalition Diomaye uh-huh. uh-huh. donc à Ziguinchor. y aura pas rien là pas mal. Il pas mal. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Oh là là là là, exceptionnel. Oh, démonstration de force. waa Ziguinchor. maa ngi leen baba. di jégalu nag liggéey bi métti na. waaye foog ñu woon leen. li xew Ziguinchor. waa Ziguinchor nee nañu. dañuy gagné élection dès le premier tour. nee na amul amul ça. lii dañuy won waa Ziguinchor nit ki ñoom tàmbali nañu On va gagner dès le premier tour. Hein. C'est rassuré. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas oh. besoin de campagne. Oh. On a déjà gagné. Oh. Là, c'est bien de jubiler. Mais je pense qu'on a gagné. On a gagné. Ouais, ils n'ont qu'à laisser. Hein? Ok. Je dis pas tout. Quoi. Ok, merci. ils, sont, ils, sont, ils sachent ce que je veux dire. Il y a des vous l'avez entendu. Ah oui. nee na du wax Vous du déjà gagné Vous avez dañuy xalaat. Ah ah. fi ok merci beaucoup. d'accord mais on en parlera plus tard. ok merci c'est comment encore. Yolande. Yolande Manga. Manga. député am de ok dañ ma ñëw yóbbu. ok parce que eux c'est comme ça ok ok on n'a pas ce temps-là moo ko travailler. xoolal Sénégal ah. dañu bëgg a def juróom benn suuf parce que dafa salté dañ juróom benn suuf. waay fan bu nekk. Uh-huh. xam ñaata omo lañ fay def. merci merci ñu def suñu suñu dëkk bi dafa set. merci mais ñoom dañuy ñëw suñu dëkk. merci beaucoup donc on en a assez. on Merci beaucoup. Vous avez le Yolande, la Lyon du Sud, eh ouais, la Lyon du Sud, la Lyon du Sud. on va gagner dès le premier tour. Il n'y aura pas de match. On va même pas finir. on ne même pas fini, on gagne. Yolande, vous avez le mère Alassane Diédiou. Ici, vous avez Alassane Diédiou. Gis ngeen peut-être dans le le maire Alassane on va gagner les élections dès le premier tour. on va pas finir. on n'a même pas fini. on a gagné on a gagné eh, on n'a oh. même pas besoin de faire les élections on a fini merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Au nom de Dieu, ce que j'ai en train de voir ici à Zienso, non, il n'y en a pas. Non, non, non, non, non, non, non, non. Vous avez le coordinateur de la mafia Katikachi. Wow. Le gars, il est là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas de match Asiens. On va gagner dès le premier tour. Je vous dis non. Non, ça... Dès le premier tour. Machallah. Oh. va, gars, il est en sort à Moulfen. En caravane de 1 km. Amadaou. dama daw di topp oto yi pour le maire Abdou Mané Abdou la ñuy xaar ñu régler formalité donc c'est rassuré waaw problème formalité la quoi formalité kese Sénégal waaw wala 15 régions yi ak diaspora dañu lancé wante depuis ci euh, pourcentage. waaw ñun dinañ doon score bu kenn dul am Sénégal incha allah. waaw dégg nga yéen a ko dégg yéen a ko dégg yéen a ko dégg waaw. Ziguinchor pare na Ziguinchor pare na. mais daanaka nee nañu liggéey amu fii parce que déjà lépp mat na ba pare ay doxantu la rek. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بوك انترنتي مو لي جاب بابا واكر عبد العزيز فوكي 2024 زيارنا لين زيارنا لين زيارنا لين زيارنا لين زيارنا لين

national Nairobi eh ziar naa la ziar naa la ziar naa la ziar naa la ziar naa la international Nairobi eh ziar naa la waaw yàlla nga tane ak jàmm yàlla nga tane ak jàmm yàlla nga tane ak jàmm Ziguinchor moo ngi def caravane de un kilomètre de un kilomètre laa lay wax barki Rasulullah billahi lu fi am lu fi am cara, cara. 와, 와, 와. 빨리. 아, 저기. waaw jaajëf bunu xale bunu lobe wàllu lobe waaw mais yow adoo wàcc adoo wàcc idi wala nak dama mu wàcc waay waaw waaw Гер, гер, гер. waaw waaw ñu dem tëdd nelaw ñu dem tëdd nelaw ni dañu soxla force suñu Sénégal mu set wicc comme niñ leen ko ko joxee ñoom ñu tax ñu ak salté ñoom dañu tilim nañu dem ñun dañuy fóot ci fóot lañ nekk quoi ci fóot bi day set xoolal xaw ma waaw Sénégal nous on est de nous mm-hmm. et vraiment c'est un pays magnifique. Mm-hmm. pays boo xam ne dafa am démocrate. Mm-hmm. gars yi ñëw yàq suñu dëkk bi nii. le monde entier ku koo xam ne ñun ñoo ko tane mu ñuy saaga. mu ñuy saaga c'est quoi ce bordel là. non

On va gagner dès le premier tour. Mais non, dès le 9 heures, 9 heures. Il faut dire xoolal du ñu rey de du ñu rey. diaspora bi foog ñu ñu si booy rey da ngay def nii. waaw waaw waaw mais ñu nañu <laughs> yow foofu nee na de yow foofu nee na de